en tant que bindkat xam nga da ngay génn le sensationnel. Hmm. du murit bu xër bi mooy wax yow da ngay dem nekk un chercheur. itinéraire bu maam Cheikh Ibra tey lan moo ci doon li nga xamante ni jàpp nga ni lu remarquable la lu ñu war a mën a jàngale. waaw foofu damay wax damay commencer ci ay qualité qualité mooy perfe persévérance mooy détermination mooy patience. parce que loolu yëpp boo ko gisee ñu ngi départ ci maanaam dix bi mu juddoo dix huit cent cinquante six ñaan ñi dix huit cent cinquante nga xam ni ñëw na gana na àdduna mais ñu seet ci moom ne am na yoo xam ni da ko dafa dafa nekk ci moom maanaam muy nit koo xam ne dañu ne woon kat kii de du nit ku ordinaire mais lu muy gën a dem avancer en âge rek ñu gis effectivement ne kii am na différence bu nekk ci moom. ba mu yeggee nag ba xamal ne moom am na ku mu koo xam ne yàlla moo ko jagleel mu wëri ji ko loolu moo tax ñu ñu ñu def itinéraire boobu itinéraire bi mooy moom am na ku muy seet te ku muy seet aussi il faut nga xam kooku kan la moo tax mënoo bind ci maam Cheikh te bindoo ci sëriñ Touba ndax contexte bi moo tax parce que lu muy loo bind ci maam Cheikh rek day dellu ci Serigne bi mhm. te moom mi ngi wër sëriñ bi te xamul kuy Serigne bi mais boo déggee ci ay waxam nee na kii ba mu ko xamee yàgg na du fii laa ko xamee waaye dañ koo am nuñ ko tegtaloo ñu ne ko ah ci ngay wër de maanaam waa këram yëpp ay wàlliwu lañu muy dox di wër di seet ba yegg si ci moom mais nag ay étape la ndax dafay am étape boo xam ni mi ngi wër am étape boo xam ne gis na sëriñ bi am étape boo xam ne tarbiya la am étape boo xam ne nag léegi stratégie la ndax sëriñ bi seexal na ko génne ko génne ko maanaam fi mu nekk yóbbu ko ndar ca capitale de la l'AOF. Mhm. mu am fa benn liggéey boo xam ne dañ ko ko santoon muy l'expansion du bouridisme. Hmm. kon moo tax ma ne ay étape la te étape boo xam ne dugguñu sensationnel dugguñu ci merveilleux dañu dugg ci du concret parce que loolu yëpp ay jàngat yi jàngat bi mooy moom boo xoolee ñun tey jii li ñuy def ci àdduna moom a demoon na ko ba pare. Hmm. Hmm. Et, il savait s'adapter en fait. ah oui ah oui. il a fait de la lu ñu mën a waxee politique mooy lu mu doon wax keroog doyen bu ñuy wax tey politique moom am na loo xam ne noonu la ko Cheikh Ibrahima defee ginnaaw bi nga xam ne sëriñ bi yóbbu nañ ko géej ak yooyu mu fexe ba euh, kiyanteeg tubaab bi defanteeg ñoom politique naxanteeg ñoom ba fexe moom na sëriñ bi ñibbi si rek moo tax ñu ne c'est le premier diplomate sénégalais. c'est le premier diplomate sénégalais teel a bi yamul rek ci colon yi dafa mhm. yam également ci réew mi mhm. alliance yi mu doon noué avec la la l'aristocratie sénégalaise mhm. maanaam kër gu nekk am na fa soxna ci buur yi ci ceddo yi maanaam boo jëlee Kayoor ba Sine Saloum maanaam alliance yooyu noonu mu doon kii pour l'expansion du maritime du banditisme am na famille géej ak Dorode boo xam ne pendant trois cents ans duñu waxante mu fexe ba seen doom yëpp nekk ci moom ci ci ci même case ci même cour bi mhm. danaan dem fekk sax si benn kër mu jël li ngay wax noonu expansion du mouridisme daan na tax mu dem jël xool koo xam ne ku baax la jigéen ju baax ju sell mu dem jël ko indil ko waa kër sëñ pour rien que pour pour pour yokk pour yokk xeet pour dundal mouridisme ci wàllu